jërëjëf Babacar maa ngi lay ziar di la delloo nuyoo di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy xam naa tey baalu leen ak dafay mel ni baat bi xaw na changé parce que dañu xawa a tuuti ndax weekend bi mm-hmm. eh, dañ doon sooxaale benn ay ay ay kii pas pas pas mm-hmm. feebar quand même mais mm-hmm. parfois Fatima bi da lay téebee dafay feeñ ci yëro euh, wax ji quoi ñu ngi ñaan yàlla mu saafara ñëpp ah. voilà Babacar euh, daañu amal tey jeetaay bi comme ni nga ko waxee ñu jàngat ko comme ni mu la waxee ci waxtaan yu wees. Mhm. ne faaw nit ñi di xam li xew seen wet pour man ko jàngat. tout à fait euh, étudier ko baax a baax a baax pour jël seen matuwaay. si mhm. sinon rek loolu dana mën a fabriquer di toutes pièces daal seen kaw yàqaleen lu bëri ndax euh, il faut ñuy gàttandu événement yi. Mhm. wala bu ne këtt ni jonn suñu kanam. ñu jéem ko xool ni ñu koy négocier moom. maîtriser ko wala saafara ko pour mu dem quoi. ma war a jotaay comme man. Euh, du ma activiste du ko tuddee. chroniqueur quelque part comme ni ko mais man damay analyser les choses jàpp ne yàlla dañ ci jàppale incha allah di diriñ ci peuple bi surtout parce que mission laa gis ne moom laay dox. Mhm. yàlla nañ ko yàlla nangul. d' accord allahumma amiin yal na yàlla nangu ñaan. Oustaz samedi bi gis naa ci ay image xamoon ne sax yaa nga fa donte dañ ñu ngi ci biir saal ba waaye nit ñi takkoon na ba macha allah. Mm. Euh, nga demoon fële ca Dakar Arena ci jam ñaajo ci gigamité bi nga xam ne Pastef moo ko fa doon woote. alors euh, yow mi nga xam ne njortes nañu ne euh, bokkoo Pastef xëy na danga gis loo xam ne jàpp nga ne taxawaay bii nga ci war am ngir saw askan nga am ko lan moo la yëgiti animé la ba ndaje boobu Ousmane Sonko ak Pastef woote euh, Dakar Arena mu jaral la nga dagg sa yitte yëpp dem teew ca. waaw tout d'abord <coughs> yaakaar naa am na ko bokk Pastef sax maa ko ca gën a bokk. Mhm. am na carte. gëm na kuréel bi mu nga ca mais jàpp naa ne maa ko ca gën a bokk parce que ci esprit bi laa bokk man d'accord esprit Pastef laa bokk maanaam la vérité bi nga xam ne moo tax ñu tuddee seen parti Pastef ba dafay feeñ mhm. pas-pas ci mhm. pas-pas bi laa bokk moo tax bu keneen incarné woon ku dul Sonko tamit yaakaar naa même combat bi laay mëne kon sant borom bi mhm. bëri na ku jege sori bëri na ku sori jege Euh, macha allah. benn ngook ndax euh, am na ñoo xam ne gëm nañu yonent bi ba ñu faatoo dañu leen julee distance sax te teguñu yonent bi bët te mën naa am ñi jege woon yonent bi noonu dañoo gumba benn ñu demee seen armeel yi wala dem seen bàmmeel yi kon comprendre mbir xam li ko tax a jóg am na solo lool moo gën ki nga xam ne mu ngi ci biir te mën naa am euh, li Quran di wax min ko man yuridu dunya la rek am na koo xam ne Euh, pëccoxoo bi ak bëgg a àdduna mu ko indi euh, bu loolu weesoo ma gërëm ci yàlla moom mi nga xam ne moom ma féetale foofu ndax kat euh, yàlla mooy tracé ñaari yoon ne choisir leen nga choisir benn nag mu jàppale la ci te kooku ñu ngi ko ci sant bi ci toppaat ma gërëm waa Pastef patriote yi man dëkk dëkk ma wàcc xoolal ba ma wàccee ca teer ba keroog laa gëj a laal sama poche xaalis pour génne ko ba ni ma ñëwee Sébikotane maanaam loo dugg nga waroon paas ñu ne la oustaz doo ko fi defee bi ma wàccee bay dox ci biir dem arena ba maa ngi fay doog dem c'est la première fois distance bi ma dox rek ku ma romb nuyu na ma jaaykat yeeg ñu ma doon dajal laa dama yëg benn fierté boo xam ne dama naan voilà lii moo tax ànd ak dëgg baax kon sante naa ko borom bi gërëm waa Pastef ñoom ñëpp patriote yëpp macha allah. ba ca topp accueil bi ñu ma def fekk naa stade bi fees dell benn kenn mënatul dugg yaa comprendre mhm. ma agsi ci port bi ñetti booy laa fa dajal duñu booy sa xaw nañu mag dama ne tëll rek duggaguma de ñu ne waa ji nekk ci porte bi kii bu duggul du ñu dugg te xaw ma leen <laughs> ñu ne kii bu duggul du ñu dugg ndeysaan accueil boobu rek mhm. ma agsi tamit wàcc bi ci biir am na sox su soxna soxna su baax bi mu fekk mu ne ma su ma yëgoon yaa ngi ñëw dama lay bàyyil place ci ñoom Sonko ma ne ko noo bàyyi ma toog fii rek foo ma toog nag xëy na ca la ma yëf yi fekk uh-huh. macha allah ñu gërëm ña fa teew ma ko fii ma nekkoon seen côté ak uh, way laago yi nga xam ne am naa sens sax jóg nuyu leen uh-huh. gërëm sunko tamit ni mu wàccee ba ñoo fekk si leen uh-huh. yooyu yëpp uh, ci ambiance bi la woon uh, bi ci mujjee nag mooy comme maa ngi xeexal mbir mi dama war di assister pour xam li xew ci mbir mi dafay laaj manoon naa toog télé may seetaan du ma xam li xew ca biir mais su ma accès ci laay gën a mën a xeexale mbir mi. Ah. ci laay gën a mën a concentré wu su génnee kon li ñu fa ji keroog gën a maa yokk fulla ak fayda ci ne waa naa continuer di xeexal dëgg ndax bi ci topp mooy tamit ñi doon jàpp ne jaxase nag jeunesse bi ak Sonko jeunesse bi wan na leen ne li ngeen di wax du dëkk xëy na daañu ci gën a xóot. Ah. kon daal boo ko doon topp li tax ma jóg dafay bëri jëmu Sonko bi tamit mu doon fu ñu yàlla boole mu jox ma cir lool. Euh, jox na ma cër lool deuxième fois bi ni ñu ngi gisee mais cër bi dama koy sentir incha allah ñu gërëm ko ci. kon jot ngeen gisee ci ci foofu. waaw jot nañu gisee. Hmm. jot nañu gisee macha allah li nit ñi bëri yëpp. Hmm. Euh, gise nañu kon wante waaw incha allah loolu mu nekk benn benn benn respet hmm. parce que gis naa ne su ma ne tëll suñu bëti jàkkaaroo rek day bàyyi lépp concentré wu ci man te loolu mooy ñaareelu yoon bi boobu mooy ñaareel yoon bi. kon ñu gërëm ko ci mooy bi mu wàccee bay nuyoo. waaw bi muy nuyu woy laago yi. Mhm. Euh, juste foofu la ma gars yi bëgg ñëw sama bu fekk moment yi maa ngi nuy woy laago yi. Mhm. xam nga man xaw moo ne day ñëw. Mhm. sama xel moo ne xaar mu nuyu ji ñële rek defal leen. juste ñu ne ma non Sonko day wàcc ñëw fii xaar ko mu ñëw. bul buuse. ci laa taxawee Malick Ndiaye foofu la ma fekk. ak Abbas ak Sonko ñoom ñëpp. waaw mais ñu gërëm leen ko quoi ci taxawaay bi. incha allah jërëjëf jërëjëf macha allah alors euh, bu loolu weesoo ci li nga xam ne moo fa moo fa jot a xew xëy na ñu gën ci yaatal euh, Omar bu ñu ko mënee ma ak la rési ëtt yéenekaay bu mel ni yoor yoor bi euh, dafa ñëw mu def ci xëtam bu njëkk mu ne grande déferlante patriotique à Dakar mm-hmm. en route vers une majorité parlementaire écrasante ndax li nga gis keroog mu am foofu ca Dakar Arena dal na sam xel yow ne élection yi ñu jëm kat Pastef ak Ousmane Sonko Euh, mën nañu ci am yaakaar am ci une majorité écrasante fële ci assemblée nationale. waaw d' abord <coughs> boo xoolee méga meeting bi Sonko newoon na leen bu politique jotee xamante nañu wax ji dellu na ginnaaw tuuti boo koy fàttali bu toogee ca gouvernement ba di lijjanti mbiru réew mi ca la ne mais bu jógee pour politique nga xam ne politicien baa ngi nii ci vrai sens du non comme ni nga koy waxee mooy yonent bi mooy roy waayam bu leen fàtte loolu toujours euh, meeting bi benn. ñaar dina ko wane mën naa jàngat ñaar mën na ko ëpp sax. Mhm. benn bi ñi doon gëmloo nit ñi ne jeunesse bi commencé nañu désespéré ci projet bi. Mhm. ñoom ñu nga jaay ca mbooy ma ñoom nañu tëdd nañu tëdd nelaw ñu gëmoon ne jeunesse baa ngi découragé ci Sonko bay xëy di tàllal ay quelques boy ay micro ñu taxaw ci benn marché naan njaay mi doxatul ak damaa découragé ñooñu ñoo mës a gën ñooñu mësuñu gëm projet bi. gis naa benn booy bu taxaw naan sama carte laa ko jox mais sama xaalis ma ko jox ma ne ko yow doo patriote wala xamoo su patriote wala mosoo gëm Sonko da nga doon xeex rek pour xeex dafa am ñu comprendre xeex bi ñu am daañu ñu ñëw ñu ñàkk daa ñëw kon ñu jàppoon ne jeunesse bi commencé nañu désespérer ci Sonko bi nar ko jaarale ci gaal gi sax naan ñu ngi nii di dem rek ñoo ban jeunesse la ñuy wax du boobu du jeunesse bi jeunesse bu consciente la euh, jeunesse bu am conscience la laa bëgg a nga xam ne ñoom xam nañu fiy teg seen tànk xam nañ luy doon xeex ba tey bu ñu bàyyeeku benn ngoog kon jeunesse bi bàyyeegul ko ñaar ba mooy sondage la woon sondage la oui. jëm ci élection yi oui gi jeexoon na maa ngi gis photo Cheikh boo xam ne pare na moom geste bi sax man xam nga comme oustaz laa ma ko def <laughs> waaw Cheikh Bara ne leen c'est fini. Ah, kon effectivement c'est fini. maam loolu loolu laay faral di amoon nañu benn joueur bu ay Arfan Arfan Sarr. Mhm. Arfan Sarr moom lañ wax Kor Sarr ndeysaan mos na nekk entraîneur du Jaraaf xam nga ñoo fubalandoo deux mi-temps quatre tas wala boog ay Podelé ginnaaw raay. Mhm. Eh, jamono bi mu fayal fubal nawetaan su ma juumul moom la de waaw parce que y avait Laye Camara ay ñoom euh, Baba Touré ñoom Laye Diallo mais Arfan moo daan teg penalty yi. Mhm. dernière penalty nga xam bu ko dugalee gaañu gaañu mu ne mu ne tribune bi nii gars yi nañu jóg match bi jeex na. <laughs> wala Babou Touré teg penalty wala teg ko am na ñu daan teg corner dugal ko Arfan la war a daaw wala wala wala Babou uh-huh. yooyu. Uh-huh. la ñu wane keroog ci stade bi wane ne c'est fini kon jeunesse boobu. àndul moom kese ah. génération yëpp ñu ngi woon ci biir stade bi génération yëpp laa la ñu ngi ci biir stade bi maire yi woylaago yi magi Pastef yi jeunesse yi paa diggu doomu paa yi uh-huh. ñëpp ngi ci biir jéeg yi ñëpp a ci biir. ah oui parce que on a vu une image. ñun la presse sunu kanam la amee. fi ñu taxee woon maire boobu doon wàcc ñëw ba tolloog moom. di ko di ko te xawoon sonn sax ba sapeur doon ko évacuer. mu ngoog mu wàccee di di saafonte moom. ba xale yi ba ci xale yi maa ngi gis benn xale sax bu ñu bëggoon yëgaloo ci podium bi maa ngi Sonko nekk foofu maa amoon yéen lool ndeysaan mu agsi mais fekk mu ngi ci disque diggu bi. porté woon pour ñu dugal ko muy coupé Sonko. xëy na ma expliqué woy juram neexoon na ma lool am na fu ma ko wutale pexe sax ne moment yi ñuy teg image yi ci ci télé bi Sonko di pose yooyu dañu waroon andi bi mu marqué beneen beneen affaire pour wane ne génération bii. Uh-huh. ñu ngi ci Sonko même ñii nàmp sax ñu ngi ci Sonko. kon kii sondage boobu tiital na sax ñi nga xam ne ñooy toog fële di wax moo tax loo ci gis xam nañu c'est fini. sauf que nag Dakar Arena rek ak 15000 personnes du Sénégal. kooku benn kii bu miniature la dañu miniat lu ñu tuddee lu ñu miniature. lu miniature la rek voilà le reste mooy ñu ne ci biti. kon loolu wane na ne kon kii ba léegi xol yaa ngi ci ginnaawam. li des ci biti. li duggul rek kenn waxatu ko. Uh-huh. li toog ci kër gi di seetaan kenn waxatu ko. Uh-huh. kon c'est fini kon ñaari yooyu mën naa ko jàngat ci daje boobu. Uh-huh. incha allah mu di jeunesse bi. bàyyi ba du duñ waxu ko bàyyeeguñu de ñu laa wax. parce que duñ ko mas a bàyyi. oui nañ gëm loolu parce que xam nga lu tax Sonko li tax nit bàyyi ko moo koy def te du def lu tax nit bàyyi ko. d'accord nee na leen du ma leen mos a war. ku la wax noonu nag bu ko mos a war. d'accord euh, nee na